bisimila dal leen ak jàmm mbokk internet yi Moustapha Cissé Lo mi fi waa APR dàqoon génnee ko parti bi noppi na jamono ji ngir dellusiwaat liggéey ak Macky Sall moom mi nekkoon premier vice président bu assemblée nationale et commission discipline bu parti alliance pour la république jotoon na dàq génnee ko ci parti bi moom Moustapha Cissé Lo mi ngi xam la ne jamono ji pare na ngir dellusiwaat ci biir parti bi ànd ak Macky Sall liggéey ni mu ko waxee ci ay kàddoom moom Moustapha Cissé mi ngi xam la ne noppi ngir del si wat ci wetu Macky Sall ànd ak moom liggéey ci waxtu woo xamante ne ni ñi ñuy woowee les griots de l'APR maanaam kiwél yi nekk ci parti Macky Sall bi jotoon nañu amal ay jéego ngir dox tànki jàmm ci diggante ki nga xamante ne ni moom mooy Moustapha Cissé Lo ak Macky Sall waaye itam ay naataangoom ci parti bi mu joteeloon ba waral ñu dàqu ko ñoom griots de l'APR yi ngir juboole ak defaraata diggante Moustapha Cissé Lo ak ñi mu joteel ci parti bi ba waral ñu génnee ko fa jotoon nañu dem seeti ko ca kër këram ga nekkee ca Nord ngir waxtaan ak moom dellu si xelam ci jàmm ak salaam ngir mu mën a delluwaat ci biir parti ba APR wëyal taxawaayam ak liggéeyam nam ka daan defee Moustapha Cissé Lo ci boobu boobule jotaay di xamle ci ay kàddoom ni baal naa ñëpp te maa ngi baalu ñëpp ak yile kàddu la yëkkati bu ñu sukkandikoo ci waa journal L'Observateur moom Moustapha Cissé Lo nag ñu ngi ko dàqe woon ci parti Alliance pour la République bu Macky Sall ginnaaw si nga xamante ne njiital parti ba di saisir commission de discipline bu parti ba ngir ay kàddu yu ñaaw yu mu yëkkati woon jëmale ci ay naataangoom ci fàttali ab audio bu fi génnoon Moustapha Cissé Lo di ci yëkkati ay kaddu yoo xamante ne kenn rafetluwu ko muy sax daanaka ay saaga waaye itam di joxoñ ña baaraamu tuuma naataango député mbile di Farba ngoom ak directeur général bu journal la Soleil di Yaxam Mbaye ki am sàcc ki lu balu gu jëm ci wàllu marché gerte gi ci fàttali ki lee di Moustapha Cissé Lo jotoon na ci ab bu ne xus ci sociaux yi ay kaddu yu ñaaw maanaam ay saaga jëmale ci bi bile di député Farba Ngom ak directeur général bu Soleil di Yakham Mbaye ñi leen ñaar Moustapha Cissé Lo jàpp ne dañ ko joxoñe baaraamu tuuma ci ab luubal gu mu defe ci marché gerte gi ba waral kile di Moustapha Cissé Lo yëkkati woon fi ay kaddu moom itam di leen joxoñ baaraamu tuuma ci lu bari ci ay luubal jublu ci building administratif ak yeneen ak yeneen lu ci mënti am daal mel na ni ginnaaw ay jàmm jamono ji lépp weesu ngir delsi wat fi nga xamante ne mooy biir APR lii la ñu leen indiloon ci xibaar ñu ngi leen di jaajëfal dañ ñëwaat ak yéen ngir yeneen i leeral